waaw mbokka yi comme ni ma leen ko dee defalee saa yu nekk rek comme ni ma leen ko waxee good friday lañ wax suñ waxee good friday xel yëpp dinañ dem si naan buru <laughs> suñ waxee good friday xel dina dem si Yeesu bi nga xamante ne tey tey si bési sella ji bi nga xamante ne tey lañ ko war a àtte mm-hmm. comme defoon nañ ko daaw nag fekkee déwén dañuy baaxantal daaw ñu ñëwoon fii waxtaan ak yow nga wax ñu wax yu am solo am fekkaat la fi ren tamit di la ñaanal nga teew fi ay at yu bëree bëri. dégg nuyu naa la ñu bokk mm-hmm. at yu bëri. ma nga wax ñu yow yaay kan. ñu nekk fii nii si number two Charles Street mm-hmm. nga wax ñu rek ci feet bi naka ngeen dee feetee naka mburu de. feet bi. Mm-hmm. ak la na ko ah, waral. ah ana living di suñu suñu mbokk yi mm-hmm. suñuy dëkkandoor yi ñi nga xam ne ñoo am jaama ak ñun mm-hmm. ñun tam suñ defee li ñoo def ci Good Friday bi mm-hmm. ah ñun tam ñu def naan buuru suñ ni seen juli ji soo ooree ba pare nga nga juli juli su Good Friday gi nag fi lañ koo dooree ñi de Good Friday Saturday ak Sunday Sunday nag mooy ista bi mm-hmm. waaw ajuma ji nag mooy dee Yeesu Krista mm-hmm. waaw mm-hmm. am deeyee ba pare mu ne su ma dee deewuma de su ma dee itam ñetti fan soo soo ci suma bàmmeele dooma doo leen ma fa fekka ci suma borom bi dina ma jël yóbbu ma àjjana waaw mooy nekka si dimanche ji waaw mooy dimanche waaw naka ngeen daan feete ista bi naka ngeen ko daan celebrate ah ah di dem ci sa mbokk mhm. di di di leen siya di dem ñu seet leen mhm. waaw mhm. soo defee soo defee say naa ah nga jox say dëkkandoor yëpp ak sa i xarit waaw lii moom cosaan lañ ko cosaan la ci ñun te suñ maam yaa ba ci mhm. suñu yaay yi mhm. ñu fekkee ko mhm. ñun tam ñu continuer ñun tam ñu continuer noonu di def yéen seen jamono naka ngeen ko daan célébrité naka ngeen ko daan feetee si wàllum sanse bi ak eh, yooyu eh, dañ daan sanse sanse sanse ba ba kontaan dem jàngi suñ jàngee ba pare ba wàcca ñu ñëw na ci suñ mbokk yi ak suñ dëkkandoor yi siyaar seet leen te ñaanal leen waaw am ñu gis ne at yi passé at yi ak jamono yële passé seen jamono yéen waaw jamono yéen ndax am na benn wécceeku wécceeku wécceeku wécceeku wécceeku dafa bari saa mm-hmm. kenn mënu koo compter mm-hmm. ngir suñ jamono mm-hmm. ah time boobu lu nekk yomb na waaye léegi lu nekk yombut lu nekk a ngi seet borom bi mhm. borom bu baax bi mu ñoo may suñ bureya bu tuuti mhm. ak suñ doom yi nga nekk ay abroad ñu yónnee si xam ne bés bi bés la mhm. ne yaay maam nga jël lii nga def naan buuru waaw am ñu ñëw fii fekk fii sa seet yu baree bari ñoom jullit lañ nag waaw waaye at bu nekk su ñëwee dañ fi dee fekk gaay waaw waaw ñoom jullit lañ waaye xam nga man man gurmet laa christian laa mm-hmm. waaye suma doom yi mm-hmm. ñoom dañ tuub ñoom ñëpp mm-hmm. ñu takkal ñu ñu nekk ak seen jëkkër yi jur ay doom xam nga ne ñooñu foog ñu war a nekk suma ay sët waaw suma amee dara lu ma war a def ñoom ñu ñoo dimbali ma mooy loolu julit julit ak ak sëriñ ak euh, christianity yëpp benn la mm-hmm. benn yàlla rek la ñoo wocci mm-hmm. yàlla amul ñaar amul ñetta mm-hmm. benn rek la dafa mel ni kii yow kii mu ngi dem mu ngi dem aw liimaan kii aw dobsin kii aw xéegaan ci benn yoon bi rek ci benn place bi la ñoo tasoo ñëpp ci la ñoo tasee am bu njëkk ba dañ dee gis ne naan mburu bi dafa lii nii naan mburu bi dafa nekk buy ak maalo bi rek ak sukkur bi waaye léegi gars yi dañ ci rax ay yeneen ay meew ay ñoom seen pour mu gën a neex rek mm-hmm. du tax mu teel a yàqu nga ne ku nekk ak sa jamono mm-hmm. ak li nga tombee mm-hmm. moom ngaa def waaw am léegi nga xamante ne tey la ñoo àtte Yeesu Kirista am naka la tuddaati am mu nekk li nga xamante ne tout dinañ dem si cooj bi nek fa am round iya. wane mandar gay di ñaan di ñaan seven o'clock si lañu nah. dem am bobu moy nekkal li nga xamantene mo moo bi comme nu ngeen ko dee mhm. waxe moy dëj bi mu nekkal li nga lo ne lu la cala deeyee cala de na am si dimanche bi si nga téléphone bi am ah, si la deekale ci la ci la ci la la ci la dundawutuwaat ngir waxoon na ne suma ma deeyee mm-hmm. ba ma am ñetti fan mi mm-hmm. ne soo leen demee ci suma bàmmeel mm-hmm. doo leen ma fa fekka ngir borom bi yóbbu na ma ca aljana waaw ba gaa demee am kenn ku génn dem mi ne xaaral ma dem seet ba xam li Yeesu wax nda dëgga la nda du dëgga mi ne ba demee mi ne yëre yam ci sàngoon mu set nii ci bàmmeel bi yére yam yi sàngoo moom dafa fekk mm-hmm. waaye gisu fa yeesu mm-hmm. ci la daw ci biir dëkk ba mm-hmm. woon ni ah li borom bi waxoon am na mu nekk li nga xamante ne li am solo la soo si Easter Monday bi si la ko gars yi di célébrer si Easter Monday bi waaw gisuloo Easter Monday moo tax ñu dee dem ci xote ñi am bis bic yi ak yooyu soo amee sa i mbokka sa doom sa rakka sa xarit ngeen ànda dem foofu enjoy. Mm-hmm. waaw. yi fox bi affaire yi enjoyment beeg yooyu. Mm-hmm. amul dara lu si ceeñ bu njëkk naka ngeen ko daan defee. ñun boobu ñun xamuñu <laughs> woon yooyu sax ñun. doole mm-hmm. doole daan dem si bij bi. waaw dinañ da daan dem de. su waaye man sonuma xale yi dañ laa ñëw di ma jël si waaye man na dem ah man maa fii xaaral ma toog rek ngeen dem mm-hmm. waaye léegi nag dañ dañ dee forcé yóbbu ma mm-hmm. ma toog foofu bi suma suma mbokk yaa am fa mm-hmm. léegi-léeg nga gis ñu ñëw nuyu ma nga gis ku am buree bu tutam ne ma am Mm-hmm. maam jëndal li nga bugga mm-hmm. waaw bu nekk li nga xamante ne lu am solo la parce mag baax na si réew te baax na si kër tant que ñu ngi laa gis rek yaa ngi gunge xale yi mu nekk li am comme ni la ko dee waxee rek fekk nañ la fi daaw fekkaat la fi ren nañ la fi fekkaat ay ay déwéni déwén nga toog fi jiite xale yi am am wér gu yaram ak fan bu gudda noo am bu ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi laa seetaan ak fan ñi nga xamante ne ñu abroad ak mbokki jàng ñu laa seetaan yàlla kay ma ñëpp laa ñaan ñaan laa leen ñaan di leen ñaanal yal na leen yàlla may gudd fan ak wérgu yaram ak seen yaay yeeg seen papa yeeg seen doom yeeg seen jëkkër yi yal na leen yàlla boole ñu asamaan ak suuf bee ñuy toog ba ñuy fekk gis seen seen sitaas. amiin yaa rabbi am ñu dem rek nga won ñu naan mburu bi rek am su ko defee ñu tëj ñaan ñu gars yi xool naan mburu bi naka la fekk nañ ko defee woo daaw waaw yaa ngi ci jàmbu beeg yooyu am léegi ñu dem rek nga wone nga wax su ko defee jërëjëf leen yal na leen yàlla fay. amiin rabbi. ci barke bi. Ah, ñu ñëw rek fekk am anti ñeme moom tamit. yaa yande. sama raka la. yaa def. yande. happy Easter. yande. ay wii si di seem. hey. Ah. uyu leen. maa ngi wax isma raka naka nga def. maa ngi fi maa def leen. ma wax ne happy Easter. oui c'est du naka nga gisee Easter bi. nii am géej foofu. leen fee fekka. Mm-hmm. ngeen am jaama. Mm-hmm. Easter ji neex lool. Mm-hmm. ngay añ. moom itam moom itam. sëy dafa tuub nekk sëriñ. di sëy am Easter Badji Lancaster. Mhm. ndema ñaataati Lancaster. nama 44. nama 44 Lancaster. Mhm. foofu laa sëy. waaw léegi ñëpp dañoo ñëw lu xew. Mhm. ñoom ñu ñëw ak seen doom yi ak seen sët am ba léegi rek am ñu ngi ànd ak comme ni ñu ko defee woon daaw rek dem. ànd ak dem ca naan buru seet naan buru ba parce que. yal nañu ko fekkee ay déwéni déwén. amiin yàlla may leen wér te bàyyi ci seen liggéey yi. ci barke Christ bi. ak ak bu nekk si dëgg bi bii. doom bi dafa ñëw seet naan mbuuru ji. Mhm. ni ko mhm. naan mbuuru ji bugguma. bugguma nga mer moo tax ma dem waxuma la ne lii laay def lii laay jënd lii laay jënd jënd naa yëpp def kon amul dara correct na waaw waaw mu ne yëpp def yëpp jënd naa ko. léegi nga ñaanal xale yi leen yàlla defal jàmmam. may leen wér. te guddal fan yi. ñi xam ne ñu ngi am jëkkër yal nañ nañ di jëkkër yi.